asalaamaaleykum mbokk Iba TV maa ñëwaat ak yéen tey si journée tey bi dimanche 31 30 octobre 2022 suba le 31 suba le lundi 31 octobre tey le dimanche 30 octobre 2022 fii si arène nationale si diggante Kalmu bu école de lutte Boy Niang ak Lac de 2 2 Papa Boy Djiné andiko. ah combat bu rëy Calme Ndour a ngoog Dégol la ko andi Calme Ndour a ngoog Dégol moo ko andi Calme Ndour Caatu Waalo Calme Ndour Caatu Waalo Caatu Waalo fi nga taxaw du foofu Caatu Waalo fi nga taxaw du foofu Caatu Waalo fi nga taxaw du foofu ñëwal bëre balaa ngay jël avertissement Thierno Ndiaye lii mosul amul fenn de Thierno Ndiaye fekki na ko dangay fi lii amul fenn ah. lii doy na waal. combat bi il faut ñu jàppante.

caatu waalo mbaa sa combat du yàqu caatu waalo avertissement boobu mbaa yàqul fa narul yàq sa combat caatu waalo stratégie bi ngay bëree baaxul Cerno Njaay nee na koy bëree à gauche caatu waalo booy dëgg dëgg la caatu jàppante nañu Caatu Waalo jaay na mais jàppul oh Caatu Waalo jaay na Waalo jaay na te waxal bi àggul oh. Waalo waaw ah, dafa yooru Thierno Ndiaye nee na yooru. dëgg la war na jàpp te waa ji du jàpp du la sut ëpp la booy bëreeg moom nooy def da koy def dëgg la bala mu lay yëg dëgg la waa rek am ñàpp Calme Ndour fu mu dugal bopp bi baax na Calme Ndour fu mu dugal bopp bi baax na Caatuwaalu jàppul dara Caatuwaalu jàppul dara kalau mundur punya ngi éliminé bras gauche Caatuwaalu oh mu ngi koy fiile mu ngi koy fiile mu ngi koy fiile mu ngi koy fiile pour mu siggi Calme Ndour daa bëgg Caatuwaalu siggi Thierno Ndiaye nee na bërekat doo ko jox mbër déedéet oh. ko jox la mbër mi da ngay mbër mi bu ñëwee suy bëreeg moom. Uh-huh. bu ko jàpp. bu ko jàpp. non non non. dëgg la. non oh, loolu. booy bëreeg moom. waaw. mu lay yëg na dégg ñu ne waa. waa dëgg la. bi attewaat na ñoom ñaar ñëpp ñu ngi si ardo ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dem si ardo double carburateur la ñuy doon gën di tàng du gën di. Cheikh Ndiaye moo andi Kalmu Ndour ndeysaan Cheikh Ndiaye mooy coach si école de lutte moo andi Kalmu Ndour. Arona Sall moo andi ki nga xam ne mooy Caatu Waalo ndeysaan Arona Sall mii ak Cheikh Ndiaye mii bëri nañ fi diggante Lac de Guiers ak Boy Niang ndeysaan ay lamb histoire la Cheikh Ndiaye. ah Cheikh Ndiaye mo ñu won ginaaw ni mo moy borom makhana bi ndeysan mo sol cabral bu wex bi Kalmu Ndour mo ngi salmu Almundur mu ngi sëmbu génnee nañu ron waalo doxloo ko doxloo mais boo ko nee boo ko nee doxloo mu doklo, doxloo nan lay nan la a mën a songee. a accéder ci moom. am na loo war a mën man su ma koy du aw du taxaw ci ligne de mire te du aw à droite aw à gauche. à gauche. bi aw à gauche. waaw saa waa ji xeexe bu fëlee loxo bi intérieurement pied droit am day jéggee wër waa ji Caatu Waalo boo dégloo lu Thierno Ndiaye di wax boo ko bëree di nga am lu la neex. góor boo ko ëpp doole deux fois mënoo. dëgg ngeen loolu. dégg ngeen loolu. Caatu Waalo. bougé bi mu bougé Calme da koy topp xool. xam nañ daf bëgg a da koy topp rek. waaw gis nga. daf ko tëj daal. dafa bi rek topp ko. jéggi la. saa mu jàpp. dégg saa yu si ak suwaa ji la ne. si ak suwaa ji la ne. ne l'a mi ngi ci xoolal mi ngi dugg ci ligne demi roi xoolal su ah. waa ji tàllalee loxo mu dal ko. dëgg mu soxor. mu doon mu soxor. saa yu ci ligne loxo bi ci suuf lay jógee. waaw day dajeeg moom bu ñëw sax bu ñëw sax bu dajeeg moom en arrêt day toog. wala mu mu fiir ko. wax na dëgg calme Ndour mu soxor. mu calme la. njool loolu calme Ndour ni nga wootee sa tuur da ngaa calme. calme waru ko de. calme Ndour Thierno Ndiaye nee na waru la. mbër la. kii nga travaillé loxo yi ba mu baax. mi ngi contact mi ngi def lépp. bu ñu nee far mu dox sa kaw di nga ko jox sa bopp par force. wala nga wut pexe. wala nga wut pexe. wala nga génn. ah combat bi yaatu na wàcc wàcc bi du yoon. kii ba sëgg bii muy sëgg moom du yoon. du yoon. du mu nu sigil. yoo. nga ku bi mu ko lancé de. waaw saa ci ligne dem yaram bu ko tàllalee mu dal ko. dëgg la. Caatu Waalo yéen ñooy duma Caatu Waalo ñu ngi lay duma fu mu toll nii. mais mu mais. boo mënoon préparer mbër mu daje un un un super lourd kii c'est un super lourd. un super de taille. taille. mbër la du bërekat nga bëgg a nekk nga am bërekat di ko préparer ak mbër dafa am noo koy préparer. lamb teg teggi la bu nga xam uh-huh. et ni muy sóoboo baaxul na dagg bi waa yokk loxom yu wut ci lay am na muy saa yu cee tibb dara mën na ko fii de wër dëgg la bi voilà nii mu bi saa yu sëggee da lay Dalma Ndour moom moo waaye ji da koy chargé léegi loolu xulamb ji mu ko tëj su doon mbër mu soxor da koy chargé da koy chargé way waay day jeexal làmb ji su mu ko tëj du ko may mu génn caabi ji la def ci poosam caabi caabi géew bi ca waaj te jaatuwaalo du ko mën a dindi mukk